kon sëriñ bi natt boobu nga xam ne tàmbali na ci safarul xuruj la ko ca suñ boroom jagleel ci ay xéewal yaatu na yaatu koo xam ne sëriñ bi da wax ne dako ko ci sant waaye du ko tudd ndax rëy gum rëy ak yaatu gum yaatu kon mu digle ñu santale ko boroomam sëriñ bi santam googu nga xam ne moom la wottee njàmbat dafay sant goo xam ne dafa war a rogalaat ndax la ko yàlla defal dafa yaatu ci jullit yépp moo tax nitug yàlla ko ko doon ndokkeel moom lislaam la ndokkeel diine la ndokkeel ndax diine moo am ndam jullit yi ñoo am xéewal ci liggéey bu rëy boobu nga xam ne liggéey na ko te sant dafa war ab jaam ci xéewal gu ko suñ boroom defal ndax sëriñ bi waxoon na ne wal tashkuru ni'mata bi shuhudi bi kawniha minnata dil abidi danga war a nangu seede ne jëf jii kat xéewal gii kat suñu boroom subhanahu wa taala moo la ko xéewale nga yëg ko te sant dafa war moo tax am na fu muy waxee ne xad qultu za xad qultu za taxaddusan bi niami is waajibun fi shari chukrul munimi kon mu wax ne sant yàlla lay wote fàttaliku balaa yi nga xam ne weesu na ko chagala nii chukru ilahin qabila kulliyati an zikri maadin min bala waaye nag waxtu wu nekk war nañuy teewlu bis boobu teewlu sant gi ñu ci war teewlu tawfiix ji ñu am ci sëriñ bi loolu nag bu ñu dégloo bu baax kàddu yu sell yi nga xam ne moo jóge ci Cheikh mu Mountakha te nu war koo teew lu déglu ko dégluwaat ko dañ ko ci yëg bu baax a baax ci ni munu soññee ñu teewlu waaye duñu soññee ñu góorgóorlu ci tawféex ji ñu am te mbokk ca tawféex jooju ñu am muy dëkkam bu sell bii di Touba ñu am tawféexu dëkk feek moom ak ñu am ñoo xam ne am nañ tawféexu di fi ñëw ngir moom ñaar ñooñu sëriñ bi am na fàttali gu am solo goo xam ne fàttali na ko ak soññee gu am solo goo xam ne waris na koo dégg bu baax a baax a baax ndax loo xam ne suñu njariñul tey da cee nekk ak suñu njariñul ëllëg ndax kat sëriñ bi fàttali nañu ne am na lu nu war ndax sëriñ bi moom wàccoo naag boroomam wàccoo naag ñooñ boroomam ti yàlla yi wàccoo naag malaayka yi wàccoo naag ñépp lépp lu mat a wax wax na ko lépp lu mat a jëf jëf na ko loolu nag lañ ciy dégge mooy kon nun noo war a gën a góorgóorlu war koo jox suñu lépp war koo nekkal ci dëkkam bii ni mu ko bëggee loolee nag bu nu ko defee sëriñ bi wax nañu lanu ca mën a jële waaye buñ ko defu it wala yaasu billah lañu ñu ca mën a fekk loole nag ku nekk ci dëkk bi wala nga di fi ñëw war nga ko bàyyi xel bu baax ku nekk ci dëkk bi li nga fi war a nekke danga koy war a nekkal sëriñ bi nekkal ko fi nag mooy nekk ci lim bëgg ci lam sëriñ bi leeral na ko sëriñ bi moom léppam boroomam la dañ fee war a nekk ci topp ndigal bàyyi tere jëfu yiw moytu lépp loo xam ne ab safaan la waaye bëgg lu baax bañ ab safaan di ca góorlu kon tënku ci li nga xam ne moo taxoon mu sañc dëkkam bii loolu nag kenn ku nekk war na ko bàyyi xel ndax barab moom ku fa nekk benn nga nekk fa ngir la tax barab ba jóg wala nga ñëw fa sa ci ci nga nekk fa sa nekkinu bopp sa nekkin woo xam ne dafa dëppook sa bakkan loole nag ab lor ak lo ay loro lor cay juddoo kon fàttalikooku fàttaliku ama ama am solo la ñu war a leeral suñuy xel ni mu ko waxee waaye sellal suñuy xol waaye yokk suñu yitte loolu nag delloo lépp suñu lépp ñu jox ko sëriñ bi loolu lam ñuy jural lu am solo la mooy texek àdduna ak texe àllaaxira defaru defaru biir ak bitti muccuk tey ak ëllëg te loolu moom la kenn ku nekk di wut waaye sëñ bi fàtte lu am am am solo loo xam ne ku ne war na koo bàyyi xel mooy tawféex ji ñu am nag dañ caa war a góorgóorlu ndax li suñu boroom wax ne la xad xalaq na linsaana fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala saafilina ñëpp la ko suñu boroom subhanahu wa laa jëmale waaye nag koo xam ne nag suñu borom dalaa joxub cër cër booba day tax sa sab sëf ak sab yenn gën a diis te nun ki nu àndal ku ànd ak moom war ngaa gën a góorlu war ngaa gën a bàyyi xel li la fi indi war ngaa gën a bàyyi fexel ni nga fi nekke te mooy jaamu yàlla te mooy moytu ab safaan te mooy taqoog jikko yu rafet jikko yu sell kon ku fi ne àdduna warula fee bàyyi ku fi ñëw it àdduna la waru fi waru fee indi te loolee nag topp àdduna ak fitna yeeg lépp la muy jur yàlla na ci yàlla musal ndax ab coono bu ca barke amut tuyaaba ca amut am amu ca loola musiba rek la te bépp yëngutu boo xam ne du jëmul ci suñu boroom jaa teguwul ci yoon wi nga xam ne noon la ko sëriñ bi bëggee yoon woowu la sëñ bi xàll loolee ab coono rek la ab musiba rek la ak fitna rek la yàlla na ci yàlla musal soññee la boo xam ne ku ne ku ne war na koo war na koo bàyyi xel ndax nag loo xam ne tawfiq la danga ko war a xam ndax la in shakartum la azidannakum sëriñ bi firi loon na ko mag ñi firi moo xam ne moo a bàyyi xel la mooy la nga nekkoon ba falu boo ko bàyyiwut doo folleeku kon mooy la tax suñu boroom defal la ay xéewal ci ak mbaaxam boo ci gënee góor góor góorgóorlu xéewal yooya day dolliku kon sëriñ bi dénk nañu bu baax ku fiy ñëwit na la fi lu baax indi na fi sëriñ bi indi waaye kenn waru fee ñëw rek ngir àddunay kese ndax loola ay fitna lay doon coono lay doon yoo xam ne barke du ca nekk ci lépp loo xam ne barke amu ca tuyaabay amu ca loola fitnay boroom la ak musibal musibay boroom rek yàlla na ci yàlla yàlla na ci yàlla musal moo tax sëriñ wax nañu nañu góorlu te góor góorlu googu nee na bu nu góorgóorloo dañuy dolliku di wéy rek bu nu góorgóorlu wut nag gën a suufee wala iyaasu billah te loolu kon ab fàttali la ab soññee la boo xam ne kenn ku nekk war na koo teewlu nu dellu ko déglu ko dégluwaat ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kàddu yooyu nga xam ne suñu texeeg tey ak ëllëg moo ci nekk suñu njariñu tey ak ëllëg moo ci nekk suñu muccuk tey ak ëllëg moo ci nekk kon sant gi ñuy war a sant dañ cee war a bàyyi xel melokaan wi nga xam ne kañuy sant moom la bëgg ci ñun ndax kuy sant yàlla danga koy sant ca la ko neex Sëriñ Tuubaa ba muy wax ne alayhi shukruhu bi fardin wa sunan waxaat ne nawaytu shukruhu bi kulli ma abaax waxtaarahu liya kon ci li yàlla suñu suñu borom subhaanahu bëgg faratal ko ci moom ci la koy sant lam sunnaal ci moom ca la koy sant ak li nga xam ne daganal na ko ca tànnal ko ko sëriñ bi lépp lu muy def rek lu ko suñ boroom tànnal la kon nag nun yoon woowee lañu war a xeeñtu war koo bàyyi xel wara góor góorlu bañ a sàggan ndax lu baree baree baree bari luy sonal doomu aadama mooy sàggan ca sàggan mooy ñàkk teewlu la nga xam ne ca nga war a nekk melokaan wa nga war a mel la la war a tax jóg nit ki saabu ko tegul ci kanamam mën naa jàddu yoon walla mën naa dox doxin wu yeex waaye lii tax ak kaweel kawe si yitte kawe mooy ngay teew lu waxtu wu nekk la tax a jóg la lay amal njariñ tey ak ëllëg lépp lu lay lor nga moytandiku kon sëriñ bi lim ñu bëggal mooy texek àdduna ak texek àllaaxira lii ñu tawféex jii ñu am ci sëriñ bi ñu yeyoo ko te loola góorgóorloo koy maye. leeral na wax ji bu baax texeg àdduna moom daa laaj góorgóorlu daa laaj liggéey daa laaj jëf daa laaj sellal daa laaj melokaan wu rafet waaye nag mu bégal ñu ci ne ku góorgóorlu suñu boroom gàttandu la boppam dimbalal la boppam kon loolee ab soññee la kon yàlla nañu suñu borom subhanahu wa taala defal tawfiq ba ñu nekk ci dëkkam bi nekkin wi sëriñ bi bëgg waaye ñi fiy ñëw ñëw fi ngir li sëriñ bi bëgg ngir ñu mën a jariñu tey ëllëg te yàlla yàggal fi sunu kilifa gi sàmmal nu ko ba lépp loo xam ne yéene na ko mu àggale ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.